def lépp moom Ousmane Sonko moom moo wan yoon bi wan nañu yoon bi xam nañu ni ñu koy defee grand frère li nga ñu jàngal mokk na yéene bi nga amoon Pape Djibril yaa ngi koy junju léegi Serigne Moustapha Sy Al Maktoum moom it ñu ngi koy ziar ci taxawaay bi nga xam ne am na ko ci suñu jafe-jafe bi kàddoom jàppaleem ak taxawaayam Thierno Youm euh, euh, Cheikh Youm wax nañu ko jot nañu ko kon Sy ñu ngi koy sant bu baax baax a baax su ma xel dafay dem ci kàddu baayam bu tedd ba da doon wax ne je rêve d'un pays où la justice fera de l'injustice l'ennemi à abattre loolu la ñu namm loolu la bëgg ñun ci Sénégal moo tax bi ñu ñu woowee démb ñu jóg dem wuy ji bi ñu wuy jee it ñu dalal nit ñu war a dalale c'est le mo c'est le lieu de remercier les enquêteurs ak waa police cyber sécurité wan nañu professionnalisme wan nañu ne ci réew mi lañu bokk dalal nañ ñu jox nañ ñu suñu cër ñu ngi leen ciy remercier di wax ne les sénégalais ñu ngi xaar ñu def yeneen i jéego et li ma gën a marqué mooy la jeunesse des ressources humaines de la police dama gis commissaire bu am vingt-neuf ans gis ay adjudant yu am vingt-six ans gis lieutenant bu am 32 ans xaw alors loolu ça veut dire tout simplement que lu ndaw mën kenn du ko dénk mag dama leen doon remercier remercier commissariat plateau parce que xam naa ne fa ñu ma dugal dugal luñ ma fa ci seenu coobare waaye dañu nekk di def seen liggéey maa ngi leen di remercier au passage di remercier waa coalition sàmm sa kàddu yépp Déthié Fall Thierno Bocoum Anta Babacar mention spéciale au député maire de la ville de Dakar Barthélémy Diaz remercier le président Khalifa Sall remercier Cheikh Youm remercier Moussa Tine remercier suma jeune frère suma mbokk taalibe ñu bokk Serigne Touba mu di Pape Djibril Fall ñoom ñëpp nag ñu am relation bu am solo moo tax bi ñu nekkee ci biir coalition bi suñu mandataires yi bi ñu gisee Bougane ci liste nationale bi nekk à la onzième place dañoo woote réunion ne ma Bougane lu tax nga nangu dem onzième place ma ne leen dama nekk ak sumay nawle ma nawloo leen xam ne liggéey bi ñuy def pour Sénégal dafa am njariñ man Bougane sama bopp taxul 2022 bi ñuy campagne awma liste awma candidat dañoo jug ñun waa gëm sa bopp campagne moo tax 2024 bi ñu ñëwee ci liste yi moom mii du ma bàyyi ma fen ma ne leen yéen leader yi jiitu leen man Bougane def leen ma ci ginnaaw parce que li ma ci jublu mooy Sénégal dong moo ñu ñor ñoom ñi it ñu am ouverture d'esprit à l'unanimité ñun ñëpp ñu tànn ne Barthélemy Diaz mooy jiite suñu coalition c'est important yàlla def ñu am intercoalition tëgg ko mu yaatu lool fexe ba nekk ci département yëpp ci Sénégal ñun ñëpp ku ci nekk am taxawaay boo xam ne sa yéene mooy le 17 novembre incha allah ñu abréger la souffrance des Sénégalais ñu abréger ce régime bi nga xam ne yàggu fi waaye mu ngi nekk ci fin de règne parce que prémisse yi muy wone ku ne xam na ne prémisse su fin de règne bu ma taxawee fii tey yëkkati ay kàddu ñi ci jóg yëkkati seenu doole ak seen taxawaay presse bi dañ ci bokk tout la presse vous de la presse maa ngi leen di remercier vous de la presse parce que nag ci yéen la bokk maa ngi leen di jaajëfal ci taxawaay bi ngeen am organisation reporters yi journalistes yi organisation patron de presse yi ñoom ñépp ku ci nekk taxaw na maa ngi leen di sant bu baax ci taxawaay bi ñoom mais surtout la presse internationale parce que gis na lu bari ci ay articles nit ñi def ko may profito également di remercier ay xaritu Sénégal yoo xam ne tey jii ci suba sol nañu seen dàll dem gisi waa département d'État bu Amérique ci jàppaate yi nga xam ne nguuru Ousmane Sonko ak Diomaye tàmbali nañu ko te ku ne xam na ne fa mu jëm du neex ma leen di remercier di wax rek ne damay beral mention spéciale les sympathisants du mouvement Gëm Sa di remercier avocat yi nga xam ne bàyyi nañu seen yitte bàyyi nañu seen soxla ñëw pendant plusieurs tours d'horloge ñu ñëw assisté ma may commencer ci maître El du Sall ancien garde des Sceaux maître Djibi jàll metre Diakhaté bu cabinet Boubacar Wade maître ABF maître Fa metre Doudou Ndoye ginnaaw gi maître Cissé ñëw na yokku ci maître Wele ñëw na yokku ci ñoom ñëpp ñu ñëw taxaw ngir jàppale ñu waaye may beral chapeau maître El Hadj Moustapha Diouf may sant suma njaboot di sant suma soxna parce que bi ñu ma bàyyee sànq samay mbokk damaa damaa ñëw fekk leen si kër gi am ku ne ma mais Bougane xoolal doomu Momy yi amuñu kenn ku dul yow bàyyil li ngay def bàyyil politique bi ki ci nekk ci diggante wi ne ko mais tata nous déjà bien préparé am nga loolu xam nga loolu dafay dolli jom day dolli courage may sant bu baax waali Seck ci taxawaayam parce que démb moom aussi ak soxnaam nelawuñu ñu ngi jaabante di seet lu ma soxla lu ma bëgg ba ci xaaj